يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير شفي الوالي يا ذا الود يا ذا الوجود كل بجودي بلا انتهاء شفي وزولي بلا قبول جد بزولي جميع رداي أولي تلاوة معنا لاوة هب درايا دراية لدى لديهم أذلت علي بلا ارجعال بعديالي بلا بقاي ليوم المدابي ومجنابي وسرمابي جوي سكاي قني الخرورة وما الخرورة قبل نزور معاتكاي قل لنا على يومكم علي يا من تعالى أن تركي جدا ودايا قد عدايا لي بردا دون تقاي يا غرماني أنا بمني علي وذني بلا غلاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki سنغال mbokki Tamba ñoo ngi tey fii Tamba si bis bu xasida di maanaam juróom-benneelu édition boo xam ne ñoo koy taxawal fii si jardin maire bi ñu taxawaak ak sëriñ Issa Diongo di président comité bi comité de pilotage bi bi nga xam ni boobu ba léegi ñu may liggéey bi ñu amoon maanaam ñu buggoon ko jox kàddu ngir mu wax xalaatam si maanaam ni mu taxawale bis bi ni ñu taxawalee bisub ak si fii si Issa. kon ñoo ngi lay laaj maanaam bu euh, maanaam comité bi boobu ba léegi maanaam nag na la taxawale si bis bi waaw. auzu billaahi mina seytaan rajim wa inni auzu bika wa surataha mina seytaan rajim rabbi auzu bika min amasaat sayaatin wa auzu bika rabbi an yahduruni asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu yéen ku nekk si turam ak santam di santaat bu baax a baax a baax a baax. di ñaan si doole Seexul Xaddim liin fiy jàng si alxuraan di ko fi jàng si xasida suñ borom wasaare ko si réew mi yëpp liggéey bi nag nii rek la tàmbali si lu ndaw daal di sëriñ bi yokkal boppam maanaam ak lu mu mën a mel rek sëriñ bi romb na fii sëriñ bi uh, romb na lu gën lu ne rek sëriñ bi romb na ko kon daa mel ne kon lu lu tàmbalee woon tàmbali gu ndaw rek waaye sant nañ bu baax. sant commune commune yi nga xam ne nag commission yi nga xam ne ñoom ñoo seq ak ñoom liggéey bi muy ñu yor wàllam alxuraan mi ñu yor wàll waañ wa ñu yor wàll euh, euh, euh, communication ak ñeneen ak ñeneen sant nañ ñëpp gërëm ñëpp di jéegulu itam di di di profité di jéegulu ñëpp di baalu ñëpp ak di kontaan lool xam naa dina ko gën a yaatal ndax am na ñoo xam ne lii ñuy def xaj na ñu gën ñu koo man dañ da mun ta ñak dal moo tax ñu def ko waye ñoo ngi sant bu baax di gëreem ñepp bu baax yene tam ñoo ngi leen di gëreem bu baax seen taxaway di ñaan si barkeb Seexul khadim seen ak ñëw ak seen ak dam ak seen lepp rek sun borom fulal leen ko dabal leen ci xewal yaato yaato sant nañ leen gëreem nañ leen jërë ngeen jëf akay ok jëf Baye sa ñoo ngi sant bu baax maam ngeen bayle ko nga doxal bis bu yalla soobee yàlla jërëjëf غزاني يا من دغني يا من أماني عن الغلاء fii si Tamba bi su xasida sëñ Balla Dia di président commission euh, accueil maanaam di commission bu am solo boo xam ne maanaam commission dalal gan ñu ngay laaj tey xalaatam maanaam ni nu ni mu gisee bis bi bisimilah bàyyi Balla. Birane ñoo ngi leen bu baax a baax. di siyaare suñu mbokk jëwriñ bu baax yi di leen ñaanal suñ Tuubaa dool seen i xéewal ñun nag ñu ngi nekk ci commission accueil yi muy commission boo xam ne yaakaar naa ne bu ama am solo la ndax boo wootee ba ñëw ki war a dalal nit ñi ñu toog nga jox leen ñu naan xool seen toogaay xool ni ñu war a toogee loolu yaakaar naa lu ama ama am solo ci liggéey bi la moo tax démb ba léegi ak fan yëpp ñu ngi ci doon def ay ndaje waaye ban xëyee ba léegi wax di yàlla ñu ci am lu kawe suñ jort nit ñu ko sant ba ñu ngi ciy góorgóor suñ kéem talaayal kàttan di ñaan ci dara daraja Serigne Touba rek mu nangu lu liggéey bi ba lépp luñ ci yéene ñu def kon nañ ko bëgg wante lépp Serigne tubaa rek tax mbooloo mi yaakaar na ci suba ba léegi ñu ngi ñëw niñ fàgg woon jataay ba loolu lépp amee naasa nañ ko ba loolu mi ngi amee noonu wut nañ foo xam ne pour jàngkati alxuraan la wut xisde yi la ku ñëwit daal la jox sa wàccuwaay ànd ak yow ci njekk ak teraanga dalal la jox la ndox nga naan ñu ñaan lépp rek sëñ Tuubaa defal ko aw yiw ndax yaakaar naa ne xisde yi sëñ Tuubaa yi ku ko wutal bis war nga jox doomu aadama yi war ma ju mat sëkk te lépp nag ànd ak yar ak teggin loolu moo tax tey ñoo ngi sant yàlla bu baax ni nu ko comité directeur bi dénk woon yaakaar naa ne ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan ànd ak mbokk yi ñu ko àndal yëpp nga xam ne toll nañ ci fukki góor ak juróomi soxna yoo xam ne ñoo ŋànk wàllu accueil bi yaakaar naa démb ba léegi ñu ngi ciy taxaw taxawaay bu ama ama ama am solo ñuy ñaan Sëñ Tuubaa mottalu liggéey bi ba niñ ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ñu jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin nag lépp ko ci commission bi nga xam ne mooy kaddu euh, yi ci doon toftal ñu leen sant nag bu baax a baax a baax a baax a te di leen ñaanal seen télévision bi yàlla yokk ko ba egg ci dimension boo xam ne sax dana kawé sen jort ci dara ji seigne touba xasida yi ndax yaakar na ne Ndakaaru sori na lool ngeen jóge fa ngir xasida yi seigne touba rek mo am sen fay yalla leen seigne touba fayal bopam ci dara ji seigne touba ñu ngi leen di ñaanal ci barke xasida yi yalla na yalla yok ba ngeen yëg ci dara ji seigne touba xasida yi lol rek moy kaddu ñu doon yegal ñu ngi leen di sant baax di gëreem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anta muradi anta imadi nawir fuadi ya Zadiyai زاد دايبي على تريبي تارت جيبي كلاسفيه عن عيد سيري تتميري كلي بغيري كالقياي كنت أسن dañoo nekk en direct ci télévision alxadimiya ñu ne maanaam doon laaj benn laaj rek maanaam bis bi ni leen ko taxawee boobu ba léegi ak maam sa gis-gis tey ji ci bis bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Sow ñu ngi lay ziyaare bu baax ci bés bi ñu nekk ni e, di sant mbooloo mi nga xam ne moom laa nekkal di sant Serigne Touba ci liggéey bi nga xam ne ci lañ nekk tey jii bés bi moom ñun ñëpp ñoo ko ñoo ko gisandoo ba ñu xëyee depuis 6 heures du matin ba léegi ñu ngi ci fajar lañ xëy nekk ci liggéey bi ba heure bi. E, liggéey fassiyene sante Serigne Touba jangi xasita bennel wa dekk bi ñu ngi leen di rafetlu yeen wa télévision bi nga xamne ne ñew a pour wonel ñu mbir mi nga xamne ne nañ ci jëfël ko suñu bop ngeen am passu ñew and ko ak ñun defal ñu ci lo xamne kawé na suñu ñott ñu ngi leen ci di leen ci sant bës bi nak mu ngi ni soxna yaangi ni gis ngeen leen ñom ñep wax dëgg yalla ay borom yi pass pass lañ waaw jëwriñ yi itam ñi ma àndal ñu ngi nii ñoom ñëpp ñoom ñi ñoom ñëpp ñu ngi nii ñu naan am nañ ci mbégte lu rek di ñaan yàlla itam ngeen yàgg fee ñëw di ñu fekk ñu yàgg koo def ànd ceeg yéen ci barke Seexul Xadim liñ ciy bëgg yëpp daal yàlla na dëppoo ak ngërëmam Serigne Touba ci barke Seexul Xadim yéen daal lañ ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sëñ Sow baax na jërëjëf. jërëjëf Baye Assane kon xanaa ñu bëgg si Baye Naar rek am tamit maanaam mag tamit kaay maanaam ak gànnaar ñu lay laaj maam si gis-gis maam te tey. ñi ngi leen di nuyu di leen siyaar te di leen balaax di leen balaax ah bis bi niñ ko gisee waajtaay wi yàgg na waaye jar na ko ndax lu toll ni surne xasida ak xasida ak solo sim am ndax Sëriñ tuwaa dafa bokk ci ay jeexitalam li nga xam ne moom la dénkaane woon muy surne xasida ci xasida yi def ni sama xaside yi sama doom yi sama jumaa ji kon bu ñu demee ba wutal ko bis di ko def yekk ci e, cinquième sixième waaw kon sixième bi yàlla dogal nu indi ko fii ci jardin mairie e, biñ ko fi indee itam gis ngeen mbooloo mi ni mu demee ak e, bernda yeeg yooyu yëpp ni mu demee maanaam depuis démb ba léegi ñu ngi ci wàccaaw yi ci wàccaayu gàtt yeeg wàccaayu cin yeeg bagage yeeg yooyu ba yaakaar naa fi mu nekk ñi ngi ci cappaandoo ndax yenn ci nii ñi ngi leen di tay yi ñi ngi ñi ngi leen di sóor kon duñ man lu dul rafetlu liggéey bi te ñaan suñ borom may ñu bañ yegg ci dënale suñ yeggee ci dënale bi yaakaar naa dana gën a rafet dana gën a taaru kon sëñ Birane li mbégte la kontaan nañ lool jërëjëf waaw asalaamaaleykum kon ñooy nuyowaat ñu waa commission communication taxaw ak sunu sunu yaay Fall soxna Awa Dumbuya di sunu roykaay wax dëgg yàlla ñu fekk ko fii mu nekk roykaay bu mag ñu koy bëggee saa su nekk kon soxna Awa Dumbuya yow mi nga xam ne yaa jiite eh, waañ ñu lay maanaam ñu nekk en direct si télévision Alxadimiya ñu doon laaj maanaam sa sa gis-gis maanaam si bis bi ak maanaam wàccee bi nga xam ne def ngeen ko boobu ba léegi waaw soxna si bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. taalaa wa barakaatu. di sant yàlla di sant yonant bi di sant sama ñaari waajur di julli ci yonant bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba di jaajëfal maam Cheikh Rafaal di sant soxna jaariyatullaahi bu wér te xam ne lii lépp moom moo ko waral moom soxna jaariyatullaahi bis bi nag tàmbali nañ ko si bisimilah rahmaani rahim ñoo ngi ñaan yàlla ñu àggali ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waajal nañ ko ndax waajal gi. moo waral ñu defee ko fii tey ndax kër sëñ Touba lañ ko daan defee te wala fa lañ ko war a defee sax tax sunu ndigal la ci sëñ Mountakha Mbacké mi nga xam ni moo ñu jëndal kër googu posé ñu fa première pierre digal ñu ca kër googee kër sëñ Touba gee buñ fa mënta jàng xasida mun ñu faa wàccee kaamil nañ ko tëjal kër gi looloo waral. tey ñu yaakaar ni dana gën a yaatu te yoon bii di boulevard yoon jëm ni yoon jëm ni muy boulevard ñu bëgg ñépp gën a xam kuy sëriñ Touba waaw ndax sëñ Touba kenn umpalewu ko waaye am na ñu ko xaw a umpale looloo waral comme journée xasida la te sëñ Touba moo ñu wàcceel ñettam yii di jumaam ji njabootam gi xasidaam yii te ginnaaw nag xasida yi ñun la ñu féetewoo waaye ñoo ngi ciy sant yàlla nag ndax soxna Astu Mbàkke mu sëñ Fàllu tey jii ci fajar la tàggoog ñun kon mel na ni bés bi alaa daw na ba pare sëñ Seex Mbawar Fall mu Seex Ibra Fall mi ngi fii ci dëkk bi te yaakaar naa ni dina bés dina teew ci si bés bi ci waajal gi ngeen ma ko laaje nag waajal nañ ko moo waral ñu agsi fii tey pour bëgg nag ñëpp xaj si ñëpp jot si yaatal nañ ko nag ndax bu ñu ñëwee ba ci boulevard bi rek mooy yaatal bi moo waral ñëw bi fii nag du dara nag ndax am nañu fuñ ko defee yaatal nag bu ñëpp xaj si moo waral lii loolu nga ma laajagum loolu laa lay tontoogum ba laaj ma leneen. waaw jërëjëf xanaa kon lay bàyyi des liggéey ba de xam naa ne amoo jot ndax xam naa ne boobu léegi nii ñaa ngi lay soxla kon ñu ba si kanam incha allah jërëjëf jërëjëf soxna jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàgg leen fi rajo bi yàlla barkeel ko ci barke xasida yi ci barke ba si weeru rajo bu tedd bi yàgg leen am jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon ñu leen di nuyuwaat fii édition fédération journée xasida fédération Tambacounda di ko di taxawal fédération des Mouride ñu nekk en direct si télévision Al ñëw tey maanaam euh, daf maanaam maanaam bis bi ñu taxaw ak Serigne Moustapha Diaw ak ñi ma organisation yi ñu jiital ko fa Serigne Diaw ñu leen doon laaj tey maanaam seenu gis-gis bis bi بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيغي نوي مبوك جوليت ييب دي نوي مبوك طالب يي دي لن سيار دي توبا بو باخ سي كادو يي نارا ييكتي سي سي خليفه يي ا بيس بي داي فان كو فوغون روم نكو لول لول لول لول صاح ناتي بو بليك بن خيي بليغي اورغانيزاسيون بي دانك موم ليپ دا فا يوم يامنا بو باخ صاح مانام xéwal yi ñëw na mbokki taalibe yi ñëw nañoo mbooloo te xéwal yi moom agsi na fi agsi na fi lu bari bari lu ci mel ne bu boisson bi ak ak ndox mi sant nañ ci bu baax sant nañ ci bu baax ndaxte mbokki taalibe yëpp gis nañ mbokki taalibe ñi nga xam si sax daanaka bokkuñu ci yoon wi sax indi nañ ñu fi ay lu ci mel ne ay ndox ak ay boisson wak ak xeetu benner bu nekk mi ngi fi fi mu toll nii xanaa di dolluwaat di sant rek te xam ne maanaam lii moom yombul nii dafa nekk loo xam si daanaka lu bees la si Tamba ndaxte bés bi bii mooy sixième édition te ca kër Sëñ Tuubaa lañ ko daan defee te euh, suñ xoolee mbooloo mi maanaam xiyaas nañ ko romb na fukki yoonam ñëw na fi nii. ñu xam ne lii rek naka sëñ bu mag bi waxe woon rek ay ay tànk yokkute la ni mu doon waxe rek na e, démbam bu nekk day gàcceem tayam maanaam lii dafa nekk firneelam ñu ci santaat bu baax di sant mbooloo mi te di jéggaluwaat bu baax te xam ne maanaam kàddu yi ñuy di sax daanaka dañ ci amul digal dafa nekk loo xam si mënta ñàkk rek waaye di xam ne ay kàddu cant la ay kàddu gërëm ñi nga xam si euh, ci jëwrinu organisation di jërëm ñëpp ñi nga xam si ñi ngi organisation te xam ne jàpp ne liggéey yi ñi ngi koy defar ci ci nu mu gën a rafetee rawatina suñu mbokk mbokki Baay Faal yi xanaa di tuubaar rek bëgg suñu jëwriñ sëñ Moussa bu amee lu mu fi sànni ci ay kàddu rek ñu ñu on tamit euh, dafa nek ma ñu tatal ko ci Moustapha Diaw mi ñu and ci liggey bi bobu legi mom tamit ya mu bokkar ci wa daayira makkar akhla bi nga xamni manam bass bi nga gis manam ñom ak jambar ci lool ba deug yalla kon si Moussa kon manam se gis-gis ci bis bi. assalamu ah, alaykum char ko di len magal am mbégte lool ci bus bi ana ndigal dal bu wacce ra jefe dal mo si comme nuñ ko waxe mbir mom ay gina ñu ko don boo suñu borom dimbali bu ñu fekkee sag tey kon dañuy delluwaal lépp sëñ bi rek te xam nañ ni moom ñun daal ndigal rek la ñuy xaar saa su ne bu jotee rek ñu jëfee ko bés bi nag wax dëgg fa ne yokkute am na si lool sax wax dëgg fa ne ñun moom am nañ si lu ñu si yëg daal nu ñu koy waxee juróom moom benn at yëpp fi lañ ko fekk suñu kanam la kon loolu noonu at bii moom wax dëgg fa ne lu si yokk moom kàr allah kon dañuy ñaan sëñ bi daal lu si yokk si xawal si mën-mën si kii rek yàlla la suñ taalibe yokk noonu rek mën-mën bi nokk noonu kattan gi noonu si doole sëñ Touba ak maam Cheikh ñu taxaw ak sëriñ Cheikh Ndiaye moom mi nga xam ne bokk na njiitu commission culturelle boobu léegi ñu ànd ak ñoom liggéey bi ban ko dooree ba léegi sëñ Cheikh ñu ngi en direct si télévision Alkhadimiya jóge ba Dakar ngir ñëw couvrir bi ñu doon doon laaj tey seen gis-gis bi ak maanaam seen wàccaay ni ko defee boobu ba léegi. Jadi yang Sow comme eh, dañ ne bisu xasida la dañ ko jagle xasida sëñ Tuubaa yi pour màggal ko loolu ñu nga xam ñu ko ci ak at ren nag moom yàlla dafa dogal mu gën cee fës ndax mbokki taalibe yi yëg-yëg am ci xasida yi lii firndeel la ndax te ba léegi ba ngir bis bi kon lépp daal nga xam ne dañ koy delloo njukkal sëñ Tuubaa rek as daal moom dafa waxoon ne dig naa sama liggéeykat yi te liggéey bi jàppoon na ne dara koy wut xas tey. habli diqaama qini malaama habli karaama liwaay بسر بعد بسر فادم بخرق عاد للأولياء بزنا لليد قدري ak Serigne Adama Niass di njëriñu fédération des daayira Mouride fii si Tamba boobu ba léegi ñu ànd ak moom ci liggéey bi maanaam bañ ci koy dooree ba léegi mu ànd ak mu bokk demee si comité bi pilotage bi ñu ko doon laaj manam ni mu gisse bis bi ak nañ ko taxawoo boobu ba léegi Baye Adama ñoo ngi lay ci télévision alxadimiya di la laaj manam bis bi ni nga ko taxaw boobu ba léegi ak manam xalaat bis bi tey bismillah rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadim wa sallam tasliman asalaamaaleykum mbokki yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare ñëpp sant bi koo taxawal ngir màggal xasida Sëriñ Tuubaa mooy ngir liggéeyee Sëriñ Tuubaa mu kaay su njort nag ndax wax dëgg yàlla bañ koy tàmbali 2013 la woon ba ren jii mooy juróom benneelu at bi waaye ak yokkute rek lañ ci gis ak i ak xéewal ndax ñu ko daan defee ci kër Sëriñ Tuubaa gi waaye dem na ba xajatu التي فاقت قصائد الكتاب كون دول وخارنا وجال كل عمل يقود خسر في موقع لب يب في بحر قصيد خسر دي بيسو خسر دي نيغا سان يالا باخ توبا خول سيت لو غوي تواي باخ بيس لي سيرام دانا داو خامني بيس بي بنكو يفتي kawe suñ jor kon loolu ñu ngi sant yàlla baax di sant Serigne Touba di ñaan ñu ko euh, taxaw suñu borom dafa leen cee ngërëmu Serigne bi ngërëm Serigne Touba rek lañ ci sàkku ci ñi ngi sant di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn di sant suñu mbokk yi nga xam ne nekk bitim réew wax ñoom ñu nañ ci bis baax ak mbokki taaliba kon ñi ngi sant baax di sant ñëpp kon euh, ñu yemal foofu kàddu yi rek ba ci kanam jërëjëf asalaamaaleykum sëñ Birane bisu ñëpp la ak bisu alxuraan ak bisu xasida rawatina bisu xasida daa doon loo xam ne ñëpp xam nañ ko léegi ndax sëriñ bi dane waccal tawaalifi anwaara tanuur saataate bi hurmati nuuri muniir xasida yi mooy leer yuy leerale dafa mel ni loolu nag sëriñ bi da cee fàttu bindeef ñu xam ko kon njariñ yi nekk ci xasida yi ak daje di ko di ko def mu dëppooy ak euh, sëñ Muntaxa Basiiru soññee bu mu ci defoon mooy àllarba bi topp ci màggal soññee ci yaatal ko ah, ak fonk ko daa mel ne sëñ bi da cee dimbali nit ñi bañ xamandoo ko moo tax bis bi waa Tamba yëpp ñoom lañ àndal ah, di ko def mu tàmbalee ci yow mii ba ci ñëpp nga xam ne euh, wax dëgg yàlla ak cant am na ci ak yokkute ndax euh, fédération daayira ñoo ko àndal ba autorité yëpp sax jàpp ci kon lu mel ni mbiru Serigne Touba dox gi muy dox moo ñun xam nañ ci dara ci bii ni sëñ sëñ Birane جولي بابا جودي المنير وشاك البشير لا أسير بسسناي لا غتابي بلا إتابي ولا إجابي ولا ناي غير البرايا يا سلمسايا يا سلمتا يا سفي بناي أنت سروري بلا غروري زفي غروري غير فناء فيك قول ولا أول فيك قول بلا فناء أنا جزاء خديم أيز غيم ولا ريم جالد زاي أنت مجيري من الغرور ومن غروري داي زغاي زنت مغاني ستاماني قبل زماني بسلبغاي أنت سلوكي إلى الملك مايله كي معدن خي أنت جميل لا كامل أنت رسول بلا دري لك لساني الوداي هذا الجميل يا ذا البديل أنت الوسيلة لذي الغداج فيك سكوني إلى المدينة بلا فتون ولا انخداي غير عبادي باب الأيادي نور البلاد أصنع رجاي غير مكري ولا إجابة